jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte mbokk yi comme nuñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Sandaga seet fekk si fii wala seet si fi benn champion boo xamante ne gëj nañ ko gis ci làmb muy Gris Junior Gris Junior mi ñu xamoon nag ah bañ koy xam mu ngi nekk parcelle mbooloo léegi nag dafa mel ni mu ngi ca beneen écurie waaye lépp dinañ ci waxtaan xam Gris Junior fan la ne lu tax ñu gëj koo gis ci làmb nan lay waajalee mu ngi ci làmb ba tey wala daa génn ci làmb loolu lépp dinañ ci waxtaan mbokk yi Gris Junior lañ dalal ci wasaare làmb Gris maa ngi lay nuyu. baa ji li fay na la ñuy sant bu baax di julli ci bi sant sunu ñaari waajur di sant séeréer bi bu baax a baax di sant ay Modou Moustapha waa di nuyu ñëpp di nuyu followers bi yëpp di nuyu supporters yi xam nga Gris daal muy nii rek baa di sant yàlla bu baax a baax. waaw. Gris Junior dañ laa gëj gis ci làmb lu waral gëj a gis. waaw gëj a gis gi bàyyi ji lii yaa gën a xam làmb làmb ji moom daanaka léegi wiiri wiiree ci am mbër yi bëgg lu yomb bëgg lu nooy loolu rek moo tax mais ñu ngi ci suñuy entraînement chaque jour ñuy entraînement supporters yi foo jaar Gris an combat yi xam nga te ana combat yi mbër ana combat yi mais ñun moom li nu war a nekk ñu ngi ci chaque jour bar Serigne Touba mais mbër yi yaa ma gën a xam dox na sama amaak Bulldozer mu ruux. Bulldozer mu ruux. petit ñaa mu ruux léegi daal ñoom paa yi leen bëgg di jël loolu mënul nekk nan ñëw ñu affronté moo gën a yomb na combat jànq yi ay booyu ndaw fi nekk mais dañuy bëgg di jël ay Tafa Gueye 2 ay Tafa Boy Bambara yooyu amul sens nan ñu jël suñu biir nu bëree ay combat janq yu neex la parce que Sëñ Tuubaa waaw. Bulldozer euh, moo bëre woon ak Brise de Mer 2 barki yàlla may ko si ndam ci laa ko jóor ki sax mais booy li ma def ci làmb defuñu ko c'est que làmb tërëd rek moo tax mais du ma taxee banaa biliseer rek làmb làmb waxul dëgg mais maag biliseer làmb boolewuñu làmb doy waar rek mais maag biliseer moom làmb boolewuñu noonu la demee. Euh, ñu gisoon la nga nekk écrit parcelle mbooloo yaa nga fa ba tey. non jóge naa fa nag léegi maa écrit Cheikh Mbaba. Cheikh Mbaba waaw pour le moment maa écrit hmm. waaw. lan moo la jëlee parcelle mbooloo. waaw parcelle mbooloo nag seega ma dëkk Mérina quoi man fi laa joobee léegi dem beeg dig bi xaw a metti après mbëri na ma Moussa Dioum ne ma égre parcelle mboolo ak Cheikh Mbaba yëpp benn la amul benn problème léegi mën nga reste foofu comme entraînement yi di dem di wàcc chaque jour di ñëw parcelle day metti léegi coow ji bu léew mën nga rester foofu mais teewal ba léegi nii dama kii dama fay dem di contact ak sama gars yi ñoom óobali ñoom xam nga zëm gars yëpp dama fay dem di contact ñoom Oninga waaw ba léegi maa ngi mais pour le moment daal yaa ma gën a xam xam rek job bi lool moo tax. parcelle mbooloo ñaata combat nga fa bëre. parcelle mbooloo parcelle mbooloo parce que fii daal yaakaar naa trois combats laa fi amagun de xaw ma waaw trois combats di des yëpp parcelle mbooloo laa ko bëree. ñaata combat nga bëre man bëri naa douze combats. ñaata victoire. am naa huit victoire. trois défaites benn match benn sans verdict. waaw. sans verdict bi sa diggante kan la woon. ñaas ñaas. ñaas waaw moom de xaw ma fu jant bi tiir kenn xamul fu mu nekk man daal ñaas yéem na ma gëj naa ko gis bu yàgg champion la nag barke yàlla champion la waaw ak euh, ak kan ak kan moo la daan bul laal waaw bul laal mel bu. Langsar waaw. yow de ñu ngi fi lim yëpp ay sampion lañ Zil Balde Junior. Marle bul laal. nga daan kan kan. ma daan Mbaye Ngoni Cœur de Lion Iba Kane Boylo Tonnerre 2 Issa Pouye euh, des na de Mbaye Ngoni Mbaye Dieye fay moom laa mujj a bëreet grand combat. waaw grand combat mu daanu. moom Mbaye Dieye Faye la. Ah, boobu de moom metti woon na moom dóor mu daanu boobu de moom jaaxaloon na ma lan la woon gàllaaj la wala lan. pare combat bi rek du galaaj du dara booy nee leen man fa may jaar duñ fa jaar làmb tëral rek mbay gee faay bi nu ma koy jox ñoom dañ jàppoon ne day jaar jaar rek ba drapeau bi nu koy joxe ñoom gënalu leen parce que dañ yaakaaroon ne rek yoon la quoi xama rek mooy loolu. ñu jox ma ko ma ne leen amul benn problème mu ñëw animal làmb jépp sama gars yi ne ma xanaa doo répété affaire yooyu ma ne leen victoire bi laa itteewoo làmb ji moom ma ñor mais du tuus heure bu tuus jotee dinañ tuus ma bàyyi koog làmb ji yëpp muy animé mais bin ñu duggee ci géew bi. yaakaar naa lépp dëgg la. noo bëreeg moom ba daan ko. waaw ñëw rek déglu ko conseil it booy yëpp sama booy xam nga mbër xeex bi temps yi da koy tekki suuf bàyyil xam nga tempo tempo mën nga bëre bëre la gan gi yàlla xam na ne bëre sax laay boon combat bu mais xam nga làmb moom du biir xëy wasin ma dem ba stade ba ci biir combat ma xam ne gan gi jege na suuf ma déglu ko deful dara ma cokaas góos ma gis gaat bi beese ma cokaasaat góos ma gis gaat bi beese ci laa ko cuxee appel góos mu maam di ñëw ma tase moom ak droite bi. mu wàcc. coup bi bi mu dalee yëg nga ne coup bi dal bu baax yëg na ko ba ma sentir ko man sama loxo yi waaw. coup bi fan la dal. coup bi ci mâchoire bi laa ko dóor. parce mu ko appel gauche mu maam di jéem a foy si ma tax moom remis ko dóor ko droite ci mâchoire bi. la ci ndam depuis combat boobu kañ la woon 2017 wala 2018. 2018 le 3 mai ba léegi gars yi di wéeri wéeri yàlla xam na ko ku ne giri nga dem ba ci biir di nga nangu dem ba ci biir xam naa say mboq wala nga laajte kuy giri rek ñu tegal la. nga ñëwaat tuguux génn si ba léegi nii fu nu aw ana avance bi mais sonn nañu mbër yi nañu bàyyi tapet bi te ñëw ñu bëree. promoteurs yi ñu lay lijjantil combat. ñu ngi may lijjantil mais mbër yi ñoo ruux mbër yi ci am ñoo xamul nu bëgg ñoom daal ay bëree ki paa lañ fi bëgg a nekk loolu amul sens jokel mi nanu ma ko jox. jokel mi maama Lamine daan. dara nanu ma ko jox man gars yi ma nangu la jël mi fi ma nekk nii du sama place mais làmb ji léegi ku ci amul nijaay rek mooy loolu day metti sa côté trop. barki yàlla mais fi ma nekk nii du sama place jokel nanu ma ko jox. ngir jokel ndaanaan la ci làmb de. jiin daa am erreur bu mu def rek ci diggante ak Mama Lamine. jokel lu mu andi maa ko si man du xeex du bëre jokel sóob maan la rek lu leer lay wax jiin bu yof moo gën a naqari udalaase adversaire koo ko wax mu andi ay tànki bukki nanu ma ko jox du dara fecc rek la nekk jiin du dërëm buñ ma ko joxoon ñaar duñu gis lu leer laa lay wax. du bëre du xeex lu nu dem maa ko si man barke yàlla. mais Gris dañ doon jékki-jékki gis la ci benn saison nga bëre plus de trois combats wala quatre ñu dem ba léegi sampion bu doy ni yow nga def année blanche ñu gëj laa gis ci làmb nga gëj a bëre est-ce que loolu baax na ci ci xale boo xamante ni làmb am nañ ci moom yaakaar rawatina fii nga ne non baaxul baaxul jamono jooju période boobu ay der ñoo nekk ci làmb ji duñ delloo avance mais guddi nu toll nii boo yu nu fekk si duñu dara yàlla xam na ko dañuy sóob rek mais jamono jooju làmb ji daa am ay der man ma doon bëre benn combat benn saison trois combat mais léegi da ngay lijjanti sax benn muy të te du dara supporter yaay fi jàppale baa fi mais mbëri ñooy moytu wante loolu rek la mais du leneen barke yàlla. ragal nañ ci saison wu ren dinañ gis Gris Junior mu tooyal xaftaan. soobee sunu borom le retour de Borolé ci lu yàggul dara. ñu ngi ciy wax ni lu yàggul dara day taxaw. yaakaar moo gën a sori fi mu toll nii. waaw instant yu nii nag xam rek gars yi moom mooy loolu. baal nu def ndës rek tëmb tëmb. boo leen yaakaar da nga leen a pare yaa yaakaar bu yàgg fekk ñu moom doxewul noonu ñun ay Baay Faal lañu ñun lu ñëw rek pare nañu ñun combat 15 jours sax jël nañ ko fi ñun duñ delloo avance. parce que sëñ Tuubaa lu ñëw ñu jël. waaw noonu la demee. bi noo gisee làmb fi mu toll nii diggante 2000. 2013 ak léegi 2020 làmb dox na jéego jëm ci kaw. làmb ji léegi du amul sponsor rek day metti promoteurs yi carrément ñuy bay seen waar bu baax mais làmb dafa laaj sponsor parce que li ci nekk ci fere yi dafa bëri ñun mbëri ni ñuy feree la promoteurs yi di feree kon du sponsor amoon làmb ji dina gën def ay jéego mais pour le moment nii nii moom parce que ay grand combat ndaw nga gis léegi ñoo xam ne 4 combat la ñuy bëri sax bëri grand combat ñun ay 12 combat mais léegi ay combat yu ndaw ngay gis yoo xam ne presque mën naa ne mënul sax grand combat. man ak sëñ Bass rek nga ñu yóbbu ñu arène nationale def ko. foofu grand lool lool lool tamit su ko defee boo ne woo mu aw ñetti yoon woo woo bi foo toll di ko dégg. ñu naan làmb dee na fekk promoteur yi tamit am na ci part de responsabilité. dañu war a def ay jéego ñoom it di boole loo xam ne xam nga dër bi la. day am ay combat yu neex yoo xam ne mooy loolu blessure mi duñ ma ko joxoon xam nga ne loolu combat jànq la. jiin bu yoof jokkel yooyu yëpp koy combat jànq la combat yu neex. sax làmb ju neex la làmb la boo xamante ni ngër ndéem la foo capp sa baaraam wi cax. promoteur bi ñëwoon dama ko naa waxal ak gan gi ba pare man aw ma ci problème doo jubook moom di nga jubóog man parce que xam naa ne maa man instant yii nii dama lu leer laa lay wax dama nekk ci yoon war a dem te pour ma dem il foog booy jël ma ma dem mais duñ la jëlu a dem bëri rek nga mën a def dem mbër moom du noppee bëri rek nekkatul mbër. macha allah fa tabaarakalla gis naa la mais état de forme bi nga yor euh, caaxaan yëngalu la. ñun chaque jour nu ngi ci heure bu ngoon jotee booy ne ma aca barke sëriñ baam ma teg ko ci jaar nii dem man rus naa toog fii liggéeyu ma defuma dara 5 heures fekk ma fi ma toog non rus naa lool suba ak ngoon damay entraîner yàlla xam na ko ci subaa ci muj chaque jour nuy tërën. ñaari par jour ak boobu ban heure ngay yeewu le matin entraîner. waa instant yi nag deux séances rek la ñuy def 6 heures la ñuy saal 5 dem géej. instant moom deux séances rek la ñuy dóor waaw. boo demee saal ñaata temps nga fay am. waaw une heure une heure une heure trente rek xam rek saal moom weñ moom mooy lool foo defee une heure de temps une heure trente yaakaar naa doo liggéeyee normal war nga mën a génn waaw. sa xarit bëri ngeen ad ngeen woon ci làmb bëri ngeen mu daan la muy Jules de Junior ñu jékki-jékki dégg ni am na natt boo xamante ni dal na ci kawam bin nga ko yëgee ban gis-gis nga ci am. yàlla xam na ne jour ma njëkk toogee Bantamba gis Mourou Mbaye di ko wax dafa mel ni maanaam amoo dara saxatul sama yaram non dafa ma non affaire bu garaaw barki Serigne Touba zoro ma toog sama rongo ñi di toog parce que dañ doon déggante yooyu ron sama numéro ma yor numéro am dañuy war sabanteeg def lépp muy nit ku wax que ñun moom ay Baay Faal lañu ñun defuñu dara muy dara barki Serigne oyofal lépp muy affaire bu tiis mais day xam ne rek dafa am ay nawleem yu mu fi nekk doon ñenn ñi suñu borom yóbbu na leen ñenn ñi ñu ngi seen wéer moom suñu borom natoo loolu. day jàpp ne natu suñu boroom la rek te xam ne lépp day jeex waaw yaakaar naa fi mu ne nii am na tan bu baax a baax te dañ koy ñaanal mu yooxu bu baax a baax ci barke Sébra te jàmm rek lay am barke Serigne Touba ñu ngi ko koy ñaanal bu baax. loolu moo lay wan ne mbëru làmb yi famille lañ ndeysaan làmba leen boole rek waaye ku ci nekk jàmm rek la yéene morom. mais nag ñun ñëpp ay doomu ndey la parce que ñooy mayante xaalis affaire de góor la rek sport la du jeexee jeex na man presque ñi ma bëreel déggante ak ñoom ñuy waxtaan. te du tee du bëre jotaatee ñu rayante waat affaire de góor la la affaire bi baal fii la duñ duggee ci biir géew bi aca ani wéy waa gis nga joob la rek time is morning noonu la ñuy doxee ñun waaw. lamb ji fi mu toll nii ni ko gisee kan moo ci dàq bëre ci li nga jàpp. waaw lamb ji nag man instant yii nii ñi dàq bëre du neex a wax parce que ni mu demee la man xam naa ne ñi dàq bëre xaaj ji bëreetuñu parce que Moussa Dioum kenn dàqu ko bëre neexu la wax neexu la dégg mais ñi xam Moussa barki sëriñ Tuubaa mbër daqu ko bëre mais doo ko waxee ñu ne ni mu nekkoon ci moom la mais man xam naa qualité bi ci mbër xam naa ko bu baax xam naa li mu tële ak li mu man man xam naa ko kon champion la man jàpp naa ne lamb ji kenn dàqu ko si bëri man la lu leer laa la lamb moo waaxul dëgg mais Moussa Dioum rek fixé la xool ci suuf nga yaakaar ne suuf lay xool rek mu lay gis non barke yonent bi saa yu demee gauche dik latéral ah mbër mi kenn du moom barke Sèvres. est-ce xam nga ne làmb giri ñi ñi ko ñi ko dàq dëgg dëgg lekk ñu ci xaalis. wax naa la ko nee naa la dere yi ñu ngi ci suuf bi may bëree ay trois combats boobu làmb ji ay dere ci ne mais instant bi nii ku sa nijaay nekk fii ci kii bi rek ngay ne fii di bëri ah mais der yi dëgg barke Serigne Touba bëreetunu ñu ngi toog seen ruq der yi dëgg a ngi toog ku ci mel ay ñoom jaaxum xam nga ne gëj nga leen dégg te ñooñu ay der lanu ay ndaanaan lañu ay booy puy. garga mboose. wala loolu. stade Jom Iba Mar fa la ma fekk. deret ji turu ba kenn mënatu koo gis nga xam ne deret yaa ngi toog ci tuus yi di xaar léegi ndabar yi rek la dugal nuy laale di kii xamoo mais seeb rek ñun en tout cas ñu ngi ci leen war a nekk ñu ngi ci leen war a nekk chaque jour suba a ngoon ñu ngi ci leen war a nekk. looy wax promoteur yi. waaw di leen wax ni si ñoo ngi nii rek te ñoom it ñu yokk góorgóorlu rek na ñuy góorgóorlu mais yokkaat rek parce que làmb ñun làmb la na am ak lu mën a xew rek làmb la ñu am nañ ci bay suñu waar te di wax it yi geesu promoteurs yi promoteurs yi geesu der yi nanu xam ne der yi amateurs yi combat der yi lañ soxla mais pas prib dip gars yi dañu bëgg lu metti lu teng përëm waay amateurs yi di béggee di kontaan xam ne lii làmb la mais ay làmb yoo xam ne da ngay dem ñu naa cadre ab bi la mooy loolu daal ñu daal loolu la ñuy wax instant nii pour le moment waaw. Gris kontaan nañ bu baax a baax a baax lan nga bëggoon wax loo xamante ni laajuma la ko nga buggoon ko wax te waxoo ko si Gris. non instant yii nii moom bàyyi jëli yaakaar naa li ma waroon wax yëpp wax naa ko en tout cas ñun nan lay sant di la gërëm di sant ñi sama supporters yi di sant sama papa yi di sant Médina yëpp yëpp yëpp Bawol Réfane surtout Ngookom di sant 100 pour cent Gris Junior bi temps yi nee naa la barki Serigne Touba dama am jàppale car macha allah mais combat moo des. booy organiser fan si club bu ngand chaque jour di réunion di joxe xaalis bu bëri mais instant yi combat rek la ma sonale te man mënu ma tëgg sama bopp nee naa leen man du ma delloo man Baye Fall la lu ñëw nu jël en tout cas sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di sant sunu caméraman bi xam di la san Baye Jili di san sama doom day Baye Fall bi Modou Motin maa ngi koy san bu baax a baax kooku kenn la si man barki Serigne Touba en tout cas bëgg naa booy yëpp yëpp yëpp barki Serigne Touba kontaan naa ci ñoom Baye Jili ñu ngi lay bëgg bu baax. di bëgge bu baax a baax waaw noonu lay demee. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb kooku Gris Junior la sampion la ci làmb am na fi ay tàkkusaan yoo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb moom Gris Junior promoteur yi nag ubbil na leen seen bunt képp kuy promoteur ñëwal seet si Gris Junior champion la boo xamante ne làmb am nañ ci moom yaakaar rawatina mbooloo mi nga xamante ni bu jógee ñëpp jóg ànd ak moom topp ci ginnaawam dooleel ko doolay jën ndox doolay waykat public dooley mbëru làmb tamit noonu la amateur yi la ak publiku làmb yi leen di topp mbokk yi foofu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jaajëf.